ala nabii mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalina kullihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin